Euh, salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di di leen fekk ku ci nekk fa di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di jiital ci nuyu ak chaar bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal kilifa di ci réew mi yëpp di ko ñaanal ak sama buntu ci sëñ Fall muy alaaji Cheikh Ouna Mbacke di sant Sénégal yëpp nag ndax depuis barki démb ba léegi gis naa soutien yi di wax ne aw ma seen fay yàlla ñu am yàlla nañu yàlla fay di santaat bu baax a baax nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha comme ni nga ko doon waxee rek ndax jàpp nañ ne képp kuy aar war mooy Touba ñun nga ciy jàppale suñ mënoon yëppati xaalis fay la sax dañ la koy fay ndax jàpp nañ ne ñun amuñ lu dul Touba comme ni ma ko waxoon démb barki rek dëkk boo xamante ni bi muy nekk village ki fii Cheikh Mouhamadou Fall njëkk a teg comme chef village kooku mooy suñu maam direct kon jàpp naa ne dëkk boobu duñ fa doxoon démb kon mënuñoo bàyyi ba 2024 ay doxandéem ñëw di ñu jàngal lan mooy war mooy Touba di ñëw ci vidéo bu gàtt na benn démenti boo xam ne dama koy def damaa dégg léegi kiñ naan si Dame Sode Fall muy ku ma respecté di ku ma nawloo ma dégg mu wax ne démb jot nañ seex Thioro ba mu waaye ndigal li ñu amoon mooy dem këram taal ko sakkaasi ko génn ko Touba mooy xamal Sénégal yépp ne waxul dëgg man amul kenn ku ma jot ba di ma lay ma lay jégalu ndax jàpp naa ne amul kenn ku ma tooñ bay te bu fekkee ne damaa tooñ bëgg naa ñu wax ma lan laa tooñ ak kan laa tooñ ndax li ñuy wax ne damaa def marche ci dëkk bi bëgg naa kenn indi benn vidéo boo xamante ni Touba lañ def manifestation ñu gis ci Cheikh ndax manifestation bi ma woon Mbàkke laa ko wootee te bu 15 heures jotee Mbàkke lañ ma gis bi ñëw ma nekk sama kër kon bu fekkee ne ay politique dañoo làqatu ci ginnaaw lii bëgg cee ñoom nañ ko lijjantee feneen fu dul fii may xamal Sénégal yépp ne mbir yi leer na ndax daam soo Fall tudd na ci ne sëñ Bass Abdou Khadir moo ko joxoon pour ñëw sama kër saccage ko loolu ci audio bi la audio bi buñ ma interpellé dinaa ko teg kon daal may xamal ne man de du ne leen duñ mën ñëw sama kër yàq wala ñu taal ko waaye buñ ñëwee lu leen ci fekk nañ assumer seen responsabilité te xam li c'est une défense ci réew mi ko fekk man xaar kenn wala ngay jël sama ci sel ndax sama xaar ba heure bi ay mandat ñu